voilà kon maa ngi euh, je suis en bien direct. yaa ngi en direct ñu ngi lay déglu bu baax. waaw maa ngi lay maa ngi maa ngi maa ngi jégalu ndax première intervention bi xawoon na tàng. Mm-hmm. waaw donc parce que je suis je suis naturelle de moi je triche pas. Mm-hmm. gis nga j'ai toujours dit que les voyantes c'était ma famille sama sama voyante yi sama gisaane yi ah c'était ma deuxième famille. léegi nag comme lu ko waxee rek waxal na ko boppam dañuy bew dañuy dem ba egg bew man nangul leen seen bew amul solo waaw ndax ku mag ba euh, sa daara amul solo mais nay rafet ndax yaay faal bi comme lu ko waxee deux mille dix xaw ma deux mille onze fàttaliku ma si laa si li ma ko indi ku tudd mu ni na njaay moo ko indi si kër gi ñu ko ba mu jàng communication di def émission di animé wax na leen nag bu muy doog a commencé ñetti wax mais mais remarqué lu mu bëgg a wax nee dafa am ñetti forme amour l'amour d'un père et d'une entre un père et un enfant entre un père et sa femme entre en employé et ses employés maanaam nga bëgg say employé ñu bëgg la comme que dafa xaw a am jikko caay-caay nag yaay Fall mi ngi lay dégg dafa am jikko caay-caay si interview bi ku koy interview amul expérience mu tëjee que Ndéla waaw waaw xaw ma man j'ai pas écouté toute la vidéo. waaw léegi comme écouté woo ko nag bu ci bu ci bu ci attardé wu. nañ jàll ci loolu dafa xajamal nag affaire bi teel xelu nit yi ba dugg si affaire lesbianisme. waaw yow leeral nga ko yow tu aimes les hommes leeral nga ko léegi nañ jàll ci loolu ba tey moom waxul ci loolu. waaw gis Ndéla. peut-être que ki doon titré moo titré loolu rek. suñ ma junjee ay affaire yooyu xam nga loolu dafa ñaaw kon dafa ñaaw. waaw yow leeral nga ko loolu du problème jàll ci leneen. waaw jàll ci leneen dafa ñaaw ko a dégg nag nañ mhm. loolu wax wax nañ ko ma waxati ko. waaw kay def nga ci bés bu toll. d'accord tu adores les hommes d'accord. et plusieurs coups le soir d'accord. loolu daal si interview bi wala wala wala rax ko si gaal rax ko si parce que su si génn nit ki dina xam ne su si bëgg génn waaw. voilà donc léegi daal euh, suñu fin daal euh, xaw na xaw na xaw na rafetul te waroon mën a rafet. léegi nag sénégalais yëpp a ngi lay setaan di la déglu yow. wax dëgg yàlla sénégalais dañu la bëgg moom sénégalais yi nga def ba ñu bëgg ko ndax yow. Mm-hmm. nga ji am na yu mm-hmm. ci bari yoo xamante ne yaay faal moo féetee xale. Mm-hmm. yow ngay kilifaam di magam ngeen am fu bari fu ngeen jaar. moom ci jëm bi mu am lu mu la apporteel ci liggéeyam ak ci xam-xamam bi ko yàlla defal. nga gis ci sa bopp ci temps peu de temps bi mu nekk ak yow. moom tamit même chose bi muy ñëw kenn xamu ko woon xalaatul woon ne dina toog confrontation tey. Mm-hmm. bay jàkkaarloo ak Bijou bay jàkkaarloo ak sénégalais wala bay toog ak Salvé. Mm-hmm. waaw tey jii am nga faute loo image boo xam ne jox nga ko Yaay Fall. Mm-hmm. ci Sénégal. donc nag euh, wax dëgg yàlla ñun en tant que sénégalais en tant que wax dëgg yàlla porteur de voix. ñun dañ lay ñaan. lépp rafet sa diggante digganteeg Yaay Fall. waxuñu ngeen xëy liggéeyaat de. waaw rafet bi rafet bi. Euh, maanaam nga baal ko àq. mu baal la àq ñu jàll ci leneen parce que moom am na fu ko yàlla woo ci yoonam yow it am na fu la yàlla woo ci sa yoon. man de man xam nga man. man yaay faal affaire bu amee man sama bopp maa ko jël. mais Ndéla internet yi nee na des kër pour Tata la mais de cœurs pour Yaay Fall. on passe à autre chose. des lâchers xam nga ban laa jëlee. des lâchers de cœur des ballons de cœur voilà. des lâchers de papa de cœur des lâchers de ballons de cœur pour Ndella nga wax ji ndeysaan da nga bisu da nga baax nag ndeysaan da nga baax ndeysaan ndeysaan sama yaram sa ngi daw. Hmm. xam nga ñuy ñoom ñoom dabu booy ñoom ñaar comme ni ma ko waxee rek maa leen maa maa leen maa leen yaay seen njaboot tey jii bu ñu toogee bu ñu toogee yow bay teg ay seetkat ci plateau ñum sénégalais yëpp di setaan ngay dem di invité ñuy invité yeneen plateau ay kilifa yu tool noonu ñoom seen émission nit ñi di ko gën a seetaan am nga ci part de responsabilité santal yàlla ci loolu nga xamante ne jaarale na ko ci yow te yàlla mooy def mooy maye. maa leen maa leen créé. voilà maa leen créé maa leen créé defar leen tette leen nee nag ñu war a reconnaissant. xam na fan laa toll. Euh, Ndéla ah. yàlla chaque jour ñu tooñ ko. mu di ñu bàyyi. di ñu ñu koy tooñ di def ay yëf. mu di ñu bàyyi. moom borom ah. góor bi te pourtant moo ñu sàkk de. mais ak a diñ te bañ a personnalité ak dignité daf ñuy baal di ñu bàyyi bés bu rëy bi lay xaar. moom kilifa la kenn du ay waxam du bari daal. mais rek mooy. soo nekkee ci kër ba yar la fa dina egg benn moment boo xam ne yaa ngi war a joxe addiya bi di nga wax ci. man dañu egg benn stade boo xam ne ñoo ma war a jox addiya di ma baalu ak wala di baal. dëgg la yaay Fall dëgg la. ñoo ma amel addiya war ma baalu ak ma leen di baal ñu bañ maa diirante mbagg. dëgg la dëgg la waruñu maa diirante la. waaw waruñu maa diirante mbagg ndax du du man ak ñoom. ndee la. man seen yaay laa du ma. xaaral ma paas la yaay Fall tey ngeen waxtaan ci jàmm. mu baal laax ngeen jàll ci leneen parce yaay nag tey émission am la de. voilà voilà lii ma ko waxoon rek. waaw léegi doo ma ko abal d'abord. waaw xaaral ma paas la yaay Fall léegi yow ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu waaw ça va très très bien. alhamdulilah. bëri na waaye. dafa baax bi laay. waaw woo nga ma bi problème bi amee pare yaa ma woo jël sa woo ma. Mhm. oh lâcher de cœur yi yaram. lâcher de cœur yi billaahi waxuma loolu. vidéo yaa ngi fi waaye waxuma loolu. ba léegi waxuma loolu. gars yi ñooy jaxase rek mais. tout dëgg la. li ma am ma bëgg ngeen am lu lu raw loolu. ngeen xam ngeen ko. waaw man i ñaanu i ñaanu ma soxlu ma lu ma yéene sama bopp laa yéene ñëpp. Mm, mm. wallaay mënoon ngeen maa bàyyi ma. waaye waaye man mii man mii ngay waxal nii. yow ku teg kaamil nga mun ngaa waat ni yaay faal nii jàmm la ma yéene xam nga loolu sax. sa mm-hmm. émission la bàyyi ma daaneel sa émission la dama ñëw doole sa émission. Mm-hmm, mm-hmm. d'accord waaw sa émission la. ok mënoon naa taxaw bi seetaan du ma du ma dugg. moo tax ma dugg ndax dinaa neexal émission waaw waaw bii jour moo gën a tax ma dugg parce que xam naa ni ku baax la. te su ma duggee tamit dinaa yéex ba sa kaw. dégg nga wax. baalu àq nag suy am. Sara bi nga bëggoon yàq yàqee ci biir interview bi nga amal baalu àq. maa Diop Diouf nga amee ko baalu àq mënoo ma problème. Euh, mm. passe ma passe s'il te plaît passe ma. man aw ma problème boobu. c'est bon waay. jarul ngay jarul mm-hmm. jarul di mag. Mm-hmm. man seen yaay laa. dëgg la muy dabu booy. mbaalu mm-hmm. moom ñëpp rek ñu amoon muy ku mu ci doon gisaane yëpp. dem nañu ba bisu di yaa ñu doon yaa leen indi te boog dam leen favoriser ba ngeen bokk Sénégal ndax dañ leen doon ma ñëw feeñal leen fan. Mm-hmm. kon na ñu ngi la ciy sant. man sama sama commencement émission. sama tàmbali émission yow laa njëkk a tudd njëkk laa sant ci li nga def ci man ci expérience tax Sénégal yëpp di ma xool di ma seetaan loolu maa ngi la koy sant directrice ndax loo bañ bañ njombar lu tee nga ne noppee gudd na dee la ah. vraiment du dëgg l'erreur nag c'est humain bisu nee na la yàlla sax dañ koy tooñ mu di ñu jéggal te chaque jour ñu tooñ nit te duñu ko yëg kon dëgg dëgg la man doo sama noonu waaw biisu nag dina la yóbbu ba ci studio bi tette la dugal la si biir toujours biisu moo lay yóbbu ne ma nu mu la yóbbu. waaw d'accord amul benn problème. incha allah ayca waaw na rafet amul benn problème daa war a rafet. yow yaa xulóog man man mosuma xulóog yow. liggéey na ñu jeex na jeex na surtout. voilà dëgg la dëgg la. na ko yóbbu si biir studio 96.6 man sama mission terminé na sama droit ci Big Taf de ci yow laa jëkk a déggee sax day tas lee la d'accord jërëjëf ndeysaan mais lu war a jeex day jeex lu warul jeex du jeex mais jàppale nee a fi sànq yàlla wàcc fi jox kenn sama mën sax bu desee ci yow dinaa ko lekk si bu desul bu jeexee ci yow ma xam ne jeex na lii rek la du day dellu xoola nee na man li nekk ci man benn bu nekk ci yow fukk téeméer mi ngi ci man téeméer bu nekk ci yow mille mi ngi ci man parce que yaa ma yaa ma yaa ma yaa personne man kenn coaché wu ma bi may jël yow laa toogal seetal la wax la du dégg nga mu may gis may doomu góor ngay wasin yaa ma coaché lu nekk ci man yaa ko ci man du dëgg nee na ko mën nga mi ngi noonu yow sama sama sama sœur nga doo sama noonu d'accord merci voilà ñi ñu bëggoon a jaxase nag dama ko bëgg a loolu ah, dafa ndànk dafa am moo bëgg a leeral waaw léegi téléphone bi en attendant duñ histoire lesbienne bi mu ne na génn ci bopp sénégalais loolu laa bëgg mu leer te ne man yaay fal bu ñuul maa toog ne ko diw nangam musuma koo wax Dakar buzz dama ne amour paternel amour maternel laa wax ak amul xarit ak xarit lii wax. c'est pas méchant. d'accord waaye néew ma ko diw man lépp lu ma wax j'assume et j'assure te xam na loolu ci man. sama jikko xam na ko moom. tout est bien qui alhamdulilah affaire Ndella Madior. d'accord léegi nañu muy ñëw foofu noonu. dama ñëw ci ñu dem ci selbe voilà